يا من به فافني إملاب Cheikh Amadou Fadil radiyallahu anhu nee na ab ànd li ko yàq mooy tege lu mëneeful ak gànt lu mëneef maanaam teg sab xarit lu mënul wala nga gàntul ko loo xam ne mën nga ko loolu moo yàq ànd assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu